salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar ñuy sante suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci bu tedd bi seydina muhammad sallallahu taala salaam di sant sëñ Touba di ko santale bés bi ni mu ñu ko sante di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar Sëriñ Touba mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal suñuy jëwriñ Cheikh Abibou Mbacke Falilou di ko ñaanal wér ak gudd fan lépp lu mu sumb ci yoon wi suñu borom may ko kantan bu mu ko yeggalee di delluwaat di fàttaliku donc dañuy ko di fàttale ko bés bi di sant di ko suñu mbokki taalibe yi ñi nga xam ne daan nañu teew ak ñun ci bés bi sëñ Abdou Aziz Mbaye sëñ jabel wilaan day ñaan suñu borom suuf sedd seen kaw te fu ñu toll it di leen fàttaliku fàttaliku war nañu ndax dañuy faral di wax ne bés bu dellu si duñ koy fàttaliku bés bu dellu si day yokk su ay bés ci fëris yi nga xam ne teew nañ ko ci suñu àdduna ci ci ci suuf waaye it bés bu weesu noyyi bu ñu noyyi at bu weesu wàññi na li ñu war a teew ci àdduna suñu teewaay ci àdduna wàññeeku na am na ñuy faral di wax bés bu dellu si moo neex waaye bés bu dellu si it nañu bàyyi suñu xel ne at moo mu dellu si waat mel na at wàññeeku na si li ñu war a teew fii ci dunia dañ ko faral nag di ko def bésu bànneex di ko fecc ak fal mooy li ñuy wax rek anniversaire u xale yi waaye it du ñu war di bàyyi suñu xel ne ñu ngi bés bu nekk ñu ngi dëkkaaleeg bés bi nga xam ne mu ngi mu ngi mu mu mu ngi gën a jege si bés bi nga xam ne ci la ñuy wéy suñu borom wéy suñu borom boobu nag ah nii day daan duñ ko faral di waxtaane waaye ku ci nekk day mu ngi def ci xelam ne yàlla na dem na waaye dina dina néew lool lu lu ñuy dégg naa nit ki naan yàlla yàlla naa dem de yàlla naa dee dem àjjana yàlla na dem àjjana loolu daañ daañ ko dégg lool te ka laa dem na def naa ne di nga wéy ji sa borom nañ nañuy xalaat suñuy borom di xalaat suñu bés di xalaat suñu bàmmeel di xalaat yombal xiyaam ndaxte loolu nag euh, waxtaan woowu dama ci jaar rek pour rek di fàttali ñuy fàttaleku ne ñun fii dañu fee jaar donc adduna bii jaar jaar dañoo jaar donc kuy jaar nag da ngay dem da ngay dem ba réer ba kenn dootu la gisati ñi nga xam ne moo ñuy mën a wallu ëllëg ak si biir ak fi ñu jëm sëñ Maodo wax na ko léegi muy jikko jikko moom. daanaka moo lal lépp jikko ju baax soo ko amutee doo xalaat lu baax te ku xalaatul lu baax doo jëf lu baax te boo jëf ku jëfut lu baax doo am lu baax lépp lu nit di jëf ci àdduna lépp lu nit di xalaat ci àdduna dana dafa dafa bokk ci li nga xam ne mooy sa alal mooy li lay fekki ëllëg ak si biir li nga xam ne loolu lañ lay natte du du du du tribunal boo xam ne di nga naan diw lii ak yaa ko def sa jëf lu ñuy xool ubbi ko maanaam. lépp loo fi jëf nit ki dinañ faral di wax naan kuy di koy dem bu ji borom doo yóbbaale dara déedéet lépp nga yóbbaale doo fi bàyyi lenn dafa am loo xam ne danga koy yóbbaale li nga xam ne li ñuy wax booy tukki li ñuy wax bagage accompagné bagage accompagné mooy li nga xam ne moom li ñu la may nga dugg ak moom ci biir avion bi mooy lan mooy juróom-ñaari mètre percale waaye lépp loo xam ne bàyyi nga fi dañ ko dara daañ ko fret te bu ñu ko fretee dina la fekkee sa bàmmeel bu ñu fekkee yombal xayam ëllëg si bi ko ubbi boo ko jël seen nga bañ ko jël si dina la fekk si loolu nag nañ ko sàmm loolu moo jara sàmm te loolu lépp ci jikko la nit ñi nañu bàyyi seen xel bu fekkee ne diw new fa Maodo day new fi waaye maa ngi ci kaw Maodo lu nekk maa ngi koy yekk Maodo pour neex ki nga xam ne ma ma pour daal am lu lu lu lu baax wala ma am garaat bu baax wala ma am euh, ay alal wala dara waaye loolu nekk na loo xam ne muy jëw ak euh, wax loo xam ne lu dëkk moo gën a bon ci bàkkaar yi bu jëkk ba sax buñu daan boo nit ñi bu ñu daan jëw mbooloo bu daan jëw boo fa rombaan euh, bu njëkk ba nit ñi di daan taf seen seen bakken ndax xet gi muy xeexet gi nga xam ne moo fay jolli ci mbooloo mi xam ne dañuy toog di jëwaate xëy foor na foor goo xam ne ku fa romb da ngay taf sa bakkan loolu lépp dafa bokk ci li nga xam ne jëf la jëf du loo xam ne lu ñuy lu ñuy xayma la kii day moo fi def lii moo fi may lii moo fi defoon lii moo fi tabax lii moo fi moo fi def ji calàng gi waaye jëf wax ji ñuy wax ak jëf ji ñuy jëf ak bu ñuy wax ak jëw ak ak ay kaaj maanaam li wolof di wax pen nañ ko di moytu ak yi ñu yaakaar na ne bu toogee ci biir nekk wax li muy wax jëw doomu aadama loolu lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp bokkul ci jëf waaye dafa bokk ci jëf jëf jooju nag loolu yëpp dina fekk si ki nga xam ne moo ko moo moo ko jëf si ci dundam dina fekk ci bàmmeelam nañuy nañuy nañu nañ defar nañ defaraat jikko yi uhisuha bika wa zurriyataha min shaytan rajim rabbi a'uuzu bika min hamazati shayatin wa a'uuzu bika rabbi an yahdurun salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki julli yi fi teew yëpp bokki taalibe yi maa ngi leen nuyu kenn kuy sa tur ak soo sant dina mbaalu àq te dina mbaalu àq te ñaan yàlla boole ñu jégal ñëpp ñu teew ko at yu bari bakki seen xol yi loolu wéyee maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di kilifa yi diine di kilifa yi aada ku lim doo juum waaye da nga jeex jeexal waaye kenn ku ne wàcc nañ suñu xol di waxal ne dal ak jàmm te ñaan yërmande yàlla barki yàlla wàcc yéen ñëpp. te wàcc ñun ñëpp ak Sëriñ Tuubaa bu loolu wéyee waxtaan yi ñett tomb lañ ko tomb yu gàtt rek bu njëkk bi mooy li nga xamul tiita jamono ji nga xam ñëpp ci ngal di wax rajo yeeg média yi mi mi ngal ngal ci loolu ma leen wax loolu nag la ci Sëriñ Tuubaa wax ak fu mu fay mujj beneen bi mooy manaaxib yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa yàlla defal na ko te ku ñëw ci bokk nga ci danga ci am beneen bi mooy li ñu boole yéen ak taalibe euh, ñu war cee waxtaan bu njëkk bi fan yi ñëpp dégg nañ ne li ñuy wax terrorisme bi bari ci réew mi ci réew àdduna si kon astafurlah te réew mi du fi ñëw Sëñ Tuubaa xasidam gi ñuy wax mat la sifa mat la foo sëy ni lam tàmbalee ñaan da wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xamee ni mooy biru xewal yi te soxlawolu sax soxlawuma lu may ma nekk farata yi ak sunna yi def lu baax bàyyi bàyyi safaan kon alhamdulilahi karim si ni ma naan alastixaar yi bi furudin wa sunan lu tax mu ne sakkartuhu li annoo xat saaxa nii li waxtaan bii na fa maaxa sant naa yàlla bi nga xamee ne sant naa yàlla xamante ne nii moo ma wommat ak sama réew daqal ma li nga xam ne mooy ay xat-xat waxaat ne yaa man xalaa ansali waxut yemee salbal yàlla yow ki xam yaa aji màgg ci nga xam ne amoo soxna amoo doom juróo kenn kenn jur la yàlla ma aar aar sama réew mépp loolu ñu ko war a beneen bi waxaat ne li nga xam ne ñaa ngi ko tiital naan dana ñëw du ñëw waxaat ci ay béy yu wax na fii ka fii innaka waxaam yaaman bi xii la ngeen di itaab loolu ñu wax théorie muy ranalu nit loolu naa li ci seen bi wax ñu ko war a gëm góorlu tubaab bi ci boppam lépp lu mu ba waxee lislaam wala ba waxee jullit mu bëgg mu tiit bëgg bëgg fi daaw da gis daaw wax Ebola ci ku ko a sida ñaata milliards dañuy dépensé si sida te kañ te si bu doon nga rey nit kon moo wax le terrorisme jox ay dañoo terroriser yi bëgg xel yi tiit nit ñuy jàq bàyyi seen lislaam bàyyi seen gëm yàq nañu yëpp ci Facebook Facebook na daa fees bët daa war a fees bët mooy da war a xam xasee suñu bàmba yi li ñuy wax internet internet technique dong la la waaye lu dañu ubbi internet indi la Facebook indi la imo indi waaye ba lu nañu indi ko ci te loolu dara lu luñ lu luñ téye xel nit ñi rek ngir duñ dem ci yàlla duñ jàpp yàlla loolu rek moo tax ñu def ko waaye duñ ko ngir ngir ngir ngir def kenn dara li ñuy gën njëkk média si média di si ci àdduna si moo nañ fexe nit ñi pas-pas bi imaan gëm génn seen xol tàmbali ci lan bëgg xaalis te xaalis li suut du dara bala la ñu suul la nga ñàkk ko lu mu bari bari boo naree ñàkk ko kii fàtte ko boo dee ñàkk ko te loolu lay loo neex ne dekkal loo neex defal lu bon loo nekk defal waaye yow amal xaalis rek boo xasee am xaalis baar ñu classé dafay classé yu baax déedéet nokk te billaahi wallaahi ancim kuñ yi nit di leen wax naan bu leen def ni def naan loolu lépp ñu bëgg ko yàqal islam ba ba ko xatale yi loolu laa bëgg ñu ñu bàyyi xel te xam ne réew mi ñi yor réew mi nañ nañ nañ dara seen xel te bañ a tiit te xam ne suñu tuwaay ñaanu ko yàlla du fi am lu am na jëru lu jërul wax di wax sax ngir ngir nit ñi du xalaat loolu lépp tubaab yi ko bëgg ci rek bëkki ne moo njaay France nga ne Charlie Hebdo nga ma juróomi nit faatu fa adduna sëpp jóg di manifester makkatal karam nga ne ñaata juróomi nit ñoo faatu kenn waxu ko lu saam tax lu tax ana julli yi naa fekk am na ku wax ñu rey la wala ñu indi waaye wallaay laa si dañ taxaw bis pénc te ñëpp dañ teew tubaab yi dañoo baaxut ñooy yàq lislaam sëñ Tuubaa jëmm ko génn fii yàqal ko lu ñu mën def ko nañ ko buñ xamoon lii la sëñ Tuubaa mujjee ñu ko def ñoom waaye yàlla fay na ko mboolem Tuubaa ñu ko doon fexeel ak ñu bari ñu ko doon fexeel ñëpp kenn digul seen dara xëy na sëñ Tuubaa mbir lañu yolli bis bii da day da day fete ji da yëtu makkatum karam ndax Tuubaa gi 1 million 500 mille ñoo fi dëkk lu ma ñetti million dugg si fi kenn ku jog sa morom sax boo ko jog yow mi ñu yàlla baal ma kon ñun ñi jàmm am xamuñu xamuñu loolu bu ñu ko fa jéem a indi ci mi bala ñu di ko tudd ci réew mi nañu ko baax lu ñu xamul rek xamuñ ko Sénégal jàmm la xam lislaam la xam yéen ñi nga xam bàyyi ngeen seen lépp ñu fekk Sëriñ Tuubaa bokk moom cant gii Sëriñ Tuubaa ne yow kaay leen sant si ma de sant leen kaay leen sant ma yàlla di ko yàlla dafa dafa bari ba mënu ko sant bopp mu lotti ci kaay leen sant ma ko yàlla ndax li ma yàlla jox ma jox lañ ci maanaam mu ne mu ne mu ne mu ne loolu fu ñu wax ne zanamtu ixtiwaay yi kullama rumtu bi safa wa rabbi li xayri saaxa maa kaana yaqasu jot naa li may li may li may rekku ci li may sàkku ci yàlla lu lu lu lan lu may lu sell kon sama borom joxe na ma màngal na ma loo xam ne nit xel xalaatu lu xel xalaatu lu yàlla ko xam koo xam ne mu ngi ko jàppee sonal ko ngir ñetti at yi tànk tuuti loolu dañ nañ ko di ko wan di ko di ko wax ngir bëgg a fay lislaam ngir fay diine bëgg a fay yàq ngoram suñ tuwaa taxaw ñaa fawtu an ahda yi tural li wa ci man nafaaxum li xëy yi sarba dala si àddu foofu man na jéggal naa ñëpp du ma di ñoom dara yéen ñi ma yooyu ndax lu tax alimtu yaqinan ana mawlaaya kaana lii wa ana muqafa min xalal yardaw xam naa bu wér hmm, ne yàlla subhanahu wa taala nekk na man yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi nekk man kon na képp koo ma xañaa nga ma da nga torox kooku dañ ko xam si gëm ko waxaat ne barakatu islaam yi ndax wi aqbalat wa man xalaa ni fi baraaya xajalat barke lislaam yàlla jox na ma ko ku ma ko añaale nag ci génn sëñ tuwaa la buy wax ne bu ñu jàppale ñun murid yi képp Sénégal lay wax àdduna sépp lay wax ku wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasuulullaah njëwalu sëñ Tuubaa nga bokk loolu lañ ko xam baax a baax bu mu wax suñ bi xatalut bu ñaan ab réew ñaaw ñaaw Tuubaa rek li ngeen dégg bomb yi tàkk yëpp wallaahi maa ngi wax ne ci rajo laay waxe médias yi moom loo wax ngi taxaw xam naa ne àdduna si loolu mbir nangam kay ñu ko seetaan léegi ñu ko déglu waaye na wax loo xam ndax loo wax bëggoon naa wax nangam nangam naa wax fii la nekk fii waaye nekkuñu foofu wax boo ci bëggee fay bor wala nga wala nga bëgg caa xaar loolu loolu yàqal li ñuy wax luy gëm la te moo tees ñun tim nag nit ki li mu teew li teew li xam ne moom la gëm di ko yëg ci ba loolu rek la mën a wax nit ñi ku neex gëmal ku naqari weddi ndax lu tax Sëriñ Tuubaa dëkk bii li fi jàng ci alxuraan benn kaa bi képp war naa mën yoo àdduna ñaata kaa bi fi jàng ba àdduna la xale yi ndaw yi nga gis nii yëpp bokk nañ alxuraan waaw junniy kaamil ñun donc suñu suñu suñu suñu daara jiitu jàng nañ ko 1227 ñaar junniy loola lu mu mën defal adduna amut di kon nañu rafet njort ci réew mi dara suñu te bàyyi ci jàngi te dañuy ci rek bëgg ñu bañ bañ jaamu yàlla ca lañu bëgg jëf luñ luñ bëgg wax ñu ñu weddi loola ñu ñu ñu wat leneen ibola lañ fi indi ko ñu dikkaat ne nangam wax ci adduna gisuñ ko ñoo ñu di ko wax ak terroriste foo foo romb ñu teg la à part nag loolu fi am siñ bi yàlla suñ tubaab li mu am yàlla ko fay ba nag te du nekk ci réew yàlla torox réew mi maa lañ ko wax xel te rafet njort te gëm suñu tubaab te wóolu ko lii lan la lu doon ah ku ne yaa ngi tiit fu ñu toll ñu ngi tiit loolu ñu bañ ñu bay jaamu yàlla rek nañ jaamu yàlla suñ tubaab li mu am yëpp yàlla ko may wax na ne wax ji may wax muy xasaay yi nga xam ne taalif naa ko day day saafara xolob ku jum yàlla ku ne la saafara te dana jox dana dana la musal ci yeddaan bi wa bi kàllaa bi su sudur xawlu muminin muxrijan anil nawm wa bi taalifi anil xulub anil xulub man yaltamisuna ilma fi kulli zaman sama taalif yii day leeral xolob képp koo xam yaa ngi sàkku xam-xam kon ku bëgg am xam-xam ngaa jàng xasida wax na yàlla ci boppam bigloo na ma mépp at bépp bépp waxtu may na ma loo xam ne maa ngi ko namm naa ko ci moom ak lu lu ma ko ñëwal sax yàlla may na ma kooku yi wax loolu su mu réew bokkut kon nañu sant yàlla te dafa njot te dal xel kon loolu loolu laa bëggoon wax ci mbirum mbirum xel mii nga xam moo fees jamono ba média yeeg ku ne yaa ngi ci génn bu yàq waxtaan wi si dimbali ñu yàlla dimbali ñu yàlla day dal da ngay dal xam nga nit ki ndax bu tuur kenn mu ko kenn mu ko jariñoo ndox bu tuuroo kenn da ngay déglu tuur rek te te te ndax lii dafa jafe temps bu gàtt la rek waaye temps bi bu bu jàll dañ ci dañ ko jàllale ci yàlla tax Sëñ Tuubaa dafa yàlla yàlla ci boppam moo teral teraange ji ma teral nag li ma ci njëkk yàlla mooy ab jaamam laa di liggéey kam Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa du yàlla de jaamu yàlla la akramani baax yi bi anani abdul xadim yàlla teral la ma te man jaamu yàlla laa kon loolu sant yàlla moom la yàlla li mu ñor jaamu yàlla moom kon wa jaadili bimaa yaduumu bi hablihi muxtasima yàlla may na ma ma ma sax ci buuma gi nga xam ne du fereñ ci waxtasimu bi hablillahi jamiian wala tafarraqu ñoo ko foog yàlla maraami wa xaajaati li rabbi te bi hamdin wa shukri waxu ni kaari bi shukri sama càkkuti ci yàlla aji yi ma am ci yàlla jublu naa ko ci li ma ko jubloo yàlla li ma ci li may defee aji yeeg li ma jublu ci li ko sàkk lépp mooy lan sant yàlla alhamdulilahi xaaj ñeenti ñeenti yàlla mooy ba ibrahima waxee alhamdulilahi bi alamin alhamdulilahi doom jox ismail wax ko ismail wax ko yaayam wax ko xar mi góor leen mooy ñeenti sant yooyu kon nag sukkur nag mooy mooy yàlla yàlla may saxal ñu sant sant yàlla mooy yàlla may la xéwal nga sant mu teg la am nga sant loolu mooy sant yàlla auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa jaaru sax may baamuwaat waaye li may wax waxuma ci kàddu yoonu murit waxuma kàddu xalifa général des sama kàddu bopp laa ko waxee ak yéen ñi ma tooyal fii ndax amoo amoo sañ-sañu di wax ci kàddu murit ndax jiituwuma ko waaye yéen ñi nga xam ne maa seen jëwriñ Sëriñ Tuubaa am naa droit la bu ma tasee yéen bis dama boole yéen ma waxtaan ci yéen moo tax ma wax ji waaye kenn sëntuma ko maa fi wax sama bopp engagé ma kenn tim nag waxuma kenn ndax man parti Sëñ Bamba laa nekk lenn parti mu yor am ci àdduna Sëñ Tuubaa laa nekk rek ginnaaw si ki nga xam ne moom laa àndal du du ma fal di mukk lu ma gën a màggat sama mbir di gën a baax kon su ma neexalee kenn wala ma dal du ma gor ndax damay wax tubaab yi ne toujours li nga xamante ne bu ji woon Sëñ Tuubaa duñu am li am ñont yi lu fi mës a jóg ne Sëñ Tuubaa ku mës a jóg bis nga yàlla musalee wala mu dimbali la ci nga ñaan yàlla nañ ma sant yàlla waaye Sëñ Tuubaa bi mu jógee liggéey yàlla la xam la ko yàlla fay mën nañ ma sant yàlla bis boobu ndax bu amutoon di du am tubaab yi ci bu leen wóoroon li Sëñ am boo booba lay la daal si bi ko yóbboo Gabon yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko gànnaar indiwaa ko ci yéen mu ne ñoom ñi ngi sàkk ci di ma yóbbu njaareem waaye billaahi bi xamal am damay def njaareem li ma fa yóbbu mukk ndax la ma bëgg àdduna àlaxir faa ko jëlee kon loolu bu amee ñu jóg ñoom la sëñ Tuubaa nekkoon di xeex ak ñoom te nga bu lu may kursam nga téeréem ba rafiq kitaabullaahi wal mustafa nabi yonent bi laa àndal alxuraan la àndal ci la ci la baatare ñu ñëpp ba daanañ suuf tëral leen ti laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah kenn yëngootut loola bàyyiwuñ de bawuñ ñoom ndax tubaab du baax bu njëkk bi li may njëkk def lay xupp su la xuppee xupp la mënu la dara mu xëpp la bu la xëppee xëpp mënu la dara mu jaay la ci dee lañ toll nag fi nii bëgg la yàgg na sa bàyyi wala yaa man sama kenn gënu fi bàyyi wala man sama am ñun ñii de man war na sama bopp laa xam sama daal bàyyi ma gën man waaye da bëgg mu gën ma moo sañ naa mel ne moom de wallaahi naa si bëgg naa mel ne moom te lu nel gi moom dara mooy jikko ji rek la amoon jikko ji way naka laa na xuli xalaas yàlla tëggur yonent bi ci jikko ci ci ci ab juddu tagg tëgg ko dara way naka laa na xuli xalaas tëgg yaa gën a rafet maa di njëkk mag njëkk jikko ci la ko takkee woon sëñ Tuubaa ci jikkoom donc ndax kuñ jàpp nangami at sëñ Tuubaa ci daanaka addunaam neexut ndax ñeent fukki atam ci la ko jàpp boobu juróom-ñaar fukki at juróom lépp dañ ko dañ ko sonal ndekk ñokk distance yi ñun bu ñu bëggee tubaab du ñu gor wala leen bëgg tey wala leen bëgg ëllëg nit ku ñu ba nañ fexe ba ba gëm suñu bopp fa lay si jib sawaadul gis bi safaata fataagu suufaan ne nañ gëm yàpp yaram yu ñeex yu ñuul yi du du ndof wala ndof warut manqué wala nga doyee yàlla li muy def ci ci ci ci xel la koy def waxut ak bu dof yi waxut ak mala yi waxut rab yàlla yi yàlla ñuy waxal doomu aadama yi ak borom xel yi lay waxal kon ku amul xel jëloo waxal xam-xam na li ñuy kon ni ñu bare bare nag dañuy jàng ba ne ar dañuy jàng dara amul njëriñ ndax koo xam ne da nga jàng boo dee dañuy julee ci ñaan yàlla du nangu duñu ci mirage duñu takkal ëpp sëy kooka yaa ci njàngu say képp la kon li wax waxuma kenn mañ ko jàng ndax adduna fi rek na nga ne loo def waaye nañ ci boole lislaam yi tax ñu bokk nañ ci boole lislaam ndax téere yi nga jàng ci affaire yi falsafa ku mel ne Descartes Karl Marx Lénine ay gars yi nga xam ne ay bindkat bi fële ñooñe sëñ bi li ñu bind dara di sëñ Tuubaa gën a bind ma nga gaaw koo xam ne saa bindee yëkkati kalimaam aras jaay kursi di jaay kooku kooku moo gën a ëpp yëpp baax yi wa sabaxat malaaykat ti waax yi loolu moo ko bind fii lu may wax léegi tàmbali bi ne ne terrorisme yi nga xam naan day am fii du fi am sëñ Tuubaa Tuubaa ñun ñu dëkk lañu ko war a man nag am loo metti sama sama yëg laay yëg-yëg wax parce que ñaare ba Sénégal laa naa la doomu Tuubaa la sëñ Tuubaa li mu yàlla dañ ko war a respecté ñu ko cërëm ko jëru ñu fi dëkk yàlla waxoon nañ ci alxuraan ba ñu daataa ñëw allasina amanu wa tatmainu qulub bi zikrillah ala bi ala bi zikrillah tatmainu qulub del wax allasina amanu wa amilu salat Tuubaa la musulman bi ñu fa nekk seen xel lay dal ñu amuñ problème sëñ Sall yu fii taxaw déclaré na am naa 10 milliards adduna sëpp ko dégg muy màggat sëñ Tuubaa ñaanoon nañu lu ñuy wër ak li wër jaww jeek suuf seeg penko soo gànnaaw sàll lépp yàlla ko waj bu la xayra bi jeexati asiti wa fii ani afati yàlla wooteeg fii sax dafa may loolu lépp sàmbaro sëñ Tuubaa ñaanoon ko yàlla ba yàlla defal na ko loolu nag koo gëmul loo jëriñu waaye ñun gëm nañ ko te xam dafay am mukk ci àdduna ñoom nag duñ duñ dañ di yàqel nit ñi duñu yàqel nit ñi def leen nii def leen Tuubaa nii Tuubaa du fi am jàmm rek fi am Sénégal sax laay wax jàmm du fi jàmm rek fi am ndax sëñ bi ñaan na ko te am na ku fi nekkoon di ma si Abdou Lahad booba garab yu bari na cor yu bari mu jóg na day day day ñëw ndax problème du ñëw ndax ka am na ko toogal mu ko naa jël hélicoptère mu ne ko hélicoptère ba ko bu fekkee mën a jaar fi nit ñi jaar ba ko bu mu ne ko dama jaar soo jaar Cees ñu xeere mu ne ko demal daal doo xew sëñ Tuubaa fàgg na fii nga doon daal dem na fa aller dem retour kenn tudd ko nañ dafa njort tere xel yi moom am na sens mille sens moom ki jiite réew mi am na mille sens pour toog ci réew mi ndax nekk ni ci Sénégal am sëñ Tuubaa rek tubaab yi amuñ sëñ Tuubaa sëñ bi amuñu sëñ Tuubaa ku amul sëñ Tuubaa nag amoo leneen mag ñu baax ñu fi tëdd kenn ku ne ba nga nekk sa allahuma sa léegi moo tekkoon may wax nag jox sama mbokk yi ñi may déglu nga xam ne man sañ naa leen digal bokk nañ góorgóorlu jaamu yàlla dara may ñu lii mooy jaamu yàlla képp moo ñu ko mayoon sëñ Tuubaa jàpp kenn jàmm néew kenn kaay topp si ma kaay dañu jaamu yàlla ba yàlla fay ko li ñu ko defa fayee bi ñu door wax ci yoram bii kenn xamagu ko mag ñi dañoo leen ca mbàkkee ne ko ah yow de say mbokk lañu dañoo bëgg waxtaan yow lii nga nekk dañ ci sa ay kilifaam yi nga xam ne ñoo leen ay kilifaam moom Mamor Jaar ñi nga xam ne bokk ñaari wayjur ak suñu bésoo bi mi nga xam ne juróom moo ko seen jaara bokk ndey bàyyi ni ko dañu bëgg waxtaan ak jëmm lii mu li muy woote amu fi ndax ku ma sa ku ma sa woote lii mu woote amul ndam bañ ko waxee ñu ko wax ko sëriñ bi sëriñ bi fii sonaté bi nekk ak guy gu ma nga fi nekkoon nga xam yàlla daf dal ci asar fa lay wax yi daaw fa la suñu tubaab wéeru julu julu penk jant bi tàmm ni fenk ñu seet ka ca dàq wax mu ne ko ah yow day dañoo bëgg waxtaan yow ndax da ngay mbokk moo xam ne mbokk mu baax nga te ñun am ñun nga am yow ñun yow ñu bëgg nag lii nga yëkkati nga tëral ko suuf ndax mag ñu ko dañoo bëgg mën a wax ngeen ma naf ñu waaw mu ne man du ma ñooñeen ñooñu duñu man gis ngeen jant bi jant bii ku mënta fenk te fenk mënu ko tee so mënu maa tax bàyyi li may wooy yéen nag ba ngeen jógee ba tey yéen ngoo yàlla yonent bi yàlla yonent bi wuyu man mii ci ñeen yàlla yonent bi wuyu ci laa bokk xam nga tax ma fenk ci yéen ñu ne ko déedéet mu ne mu ne nekkoon yéen askan wii suñu askan wi mu askanu mbàkki mbàkki nangoo jaamu yàlla ay mag ñu dañu jaamu benn reeroo daa am nanga toppante gaa nga noonu jaamu yàlla ci ci nekkoon guddi ba ci Mamour Diarra mi bokk Sëriñ Tuubaa ñaari wayjur ñaar téeméer rakk lañ julee par bis loolu bu ñu ko xamee ñu mel mi ngi bëgg a sàyyi ndax fi ne kenn ku ne wërsugo addu ngay kenn ëppanti tuur yàlla kenn ëppanti tuur ay sëñ ba daari bi yu bari ci nag dañuy faam dañuy faam bi rek sama sëñ bi am na nii sama sëñ luy loolu dara ah, ku ku jëm ci yàlla sëñ bi ab sëñ du du du du du wërit boo xam ne wala fans boo xam ne ko war a du dëgg du noonu ah sama sëñ ba sama sëñ bi limousine lay wax sama sëñ bi kat kat lay wax sama sëñ bi gis yooyu du dara du dara c'est faux du dus nañ ko bàyyi nañ xam ni tax ñu ànd yéen buñ la njey li tax ñu ànd yéen kenn wóoñu fi kenn kenn ko yaa ñëw indi sa bopp ne sëñ Tuubaa la bëgg àndal sëñ Tuubaa nag ku bëgg ànd moom da ànd moom ci ci saraatam mustaqim ndax lii ñi ma toog di wax yéen naa ko wax ëllëg keram sëñ Tuubaa te bëgguma jëpp ma sëñ Tuubaa ñu war a taxaw dëgër mooy tax bu ci àll bi fu ne mu dem ndax ku la loggal bari na fi yëngu ci réew mi ay projet dong la projet yi mujj fenn ndax projet bu ñooña daanu nga daanu bu ñu financé du ko taxaw projet Sëñ Tuubaa lu taxaw tey du taxaw ga loo gën a màggat mu gën a baax waa ndax yàlla ko moo ñaanal Sëñ Tuubaa jeex na kenn mu ngi tus lu yàlla dogal rek waaw ba mu jaamu yàlla kenn taxu naa amin kenn ñaan lu ko dara kenn mosu ko dimbale kon nag bu taxee ba naan naa bëgg koo sàkku ndimbal li ma sàkku ndimbal lottu ci mooy sant yàlla daa xam ne ñeen la ñëpp jàmm yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xaw ni irham jimi al wara kooku kay ko wax waxoo irham mbàkki mbàkki waxoo bësa ñëpp la wax kooku kon loolu kaay waaye kaay leen li ma yàlla defal ma ma ma ma boole leen ci ngeen am ko ma am ko nii rek mooy woote bi ñun nag koy wootee wala nga ci nga ci nga ci góorgóorlu ñun waa kër sëñ ko wootee sëñ Tuubaa Tuubaa sëñ Tuubaa ba nekk la la la la waxoon fooy nekk na nga fa ñëw sëñ Fàdilu moo ne sëñ Tuubaa du ne kaay leen màggal ma ñun ñoo war a xam ni sëñ Tuubaa doon ñu def ko nañ ko màggal nañ too Tuubaa muy daje boo xam ñu see ñu lenkante kenn kon la nga nekkoon mbokk yi ngay gis gisante ñu delluwaat ci la ñàkk ci liggéey bi te ku jógee fii ku bëgg àdduna teraanga àdduna da ngay liggéey ku bëgg àdduna ëllëg da ngeen ko jaamu yàlla waaye jàpp ne moom naa duñ ci projet naa duñ ci kii doonaa ci naar yi bind ay lettre ñu nga te digg saaga mag moo fi bëri waaye du duñ financement du taxawut jaamu yàlla moo taxaw ku ci sax li nga bëgg da am fii da nga am ëllëg say ren di gën a sax gën a jolli gën a jëm kanam loolu mooy Sëñ Tuubaa kon Sëñ Tuubaa foofu la nekk kon nañ ko fi fekk ñun ñii suñu bëggee yàqu mag nettali ma ne sëñ bi waxoon na ne bis boo xam ne sëñ Basiiroo ko euh, si ko ne ko damaa am bis ma ñëw ci sëñ Tuubaa fekk Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou Fadal mu muy mu ne yàlla jaam la jën yàlla jaam ba ñetti yoon mu li nga gis ma yor ko dara mayu ko noo jaam yàlla su ngeen ci saxee bàyyi ko yéen su ngeen ci saxul bu yara dikkee kuy taxawal ba as ma jox ko mu yóbbu kon li ñu fal bu ñu ko fàtte

lii siñ Tuubaa fexe ba am indépendance boobu dañu fexe indépendance boobu ñu am ko nit ki la ku ku li naan ku ku ku comme sa sànqal amul sa kersa loolu sa xel am sa li ñuy def ne te mi bu ñu fi toogoon li Sëñ Tuubaa ñaan ñu yem ci lépp dana ñëw fekk suñu fi ndax ñaanoon na njëriñu réew yëpp yàlla wàcc indi ko yàqu li mën naa fiyal bul daal xatti bi la asamina ab daali kon loolu dañu ko war a gëm te ko loolu kon bokk na ci li ma xam ne ndax Sëñ Tuubaa dafa xam daa dëkk yàlla dafa dëkk dafa dëkk yàlla kii dama ko dëggee léppam liggéey yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi muy jaawiruhu kulli xadiman lahu bihi surtout saa xur bi waxut kun saa na ay dëkkal naa sama lépp sama lépp da ko dëkkee di ko liggéey dama ko jël di ko liggéeyee subhaanahu wa taala ba mujj jege yaa jege ko jege damay jege damay jege damay sari sa yonent bi salaas jege naa ko bu dëkk moom waaw ndax yu say yu ne kal aali wa sax bi salmadan wala xaar siran xaaba am sirri xay moo mooy maa mujj naa mel ne saxaaba yi ci ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dooy te nekk toujours lay nekk ndax yàlla womatal na ci bakk bi alayhi salaatu si secret bi nga xam ne fàddu na góor yàlla gisuñu ko woon loolu waxoon na ko waxaat ne kenn ko na nga am yéene na la ko kenn ko na nga ñaan yàlla ba yàlla jox la ko yéene na la ko waaye moom du du du xaaran kenn du tàll kenn ndoxam ko subhanahu wa taala wax na ne yàlla li ñu exceptionnel la wax da ko defal loo xam ne nit ñi xamuñ ko ah, lam yanhu ni ma ba anillahu fadla wala ilaha illa fadla wala ilaha illa mooy nga def lu baax ba nag ñu la ruus baa ngi nii am tegal ci bokk bokk ci ma ma ma fadla wala kon nañ ko xam baax te góorgóor ci waa nañ ko góorlu ci loolu loolu loolu ma digal def ko bu ñu ko defee réew mi dana am jàmm kon may sant bokki bi fii rek yëpp yëpp mante sama wëlëri bokk maa ngi sant ñu jóge kër diine yëpp tees yi maa ngi sant di leen gërëm te ñaan li nga xam ne moom la yàlla fay Sëriñ Tuubaa ci sant gi yàlla yàlla nañ ko yàlla ñëpp ku dikk indi yàlla nga am ku fi indi woon wér di yàlla nga wér ku fi indi woon ñàkk yàlla nga am loo loo jaamoo yàlla te yàlla ci tappi suñu gëm loolu yàlla te dañu def ñu dëgg-dëgg yi jullit kenn kon loolu yéen si bopp da ko yéen si morom bi loolu la digal tey loolu digal ëllëg waaye murit laa tiyaan baaxut tiyaan laa murit baaxut xaddi loolu sëñ Tuubaa digal wuñu ko kenn ku nekk la nga jàpp jàpp ci selloo ko boo ko selloo dafa ko loolu ñu sëñ Tuubaa digal fala tuaadu man raaytum faahu yox koo xam ne gis nga muy wax sa doon laa noonu mukk jàpp ne yéen bokk ndey bàyyi kon li ñu sëñ Tuubaa digal bu ñu ci tënkoo dara du ñu ñu yëpp yem kon mbokk yi nañ góorgóorluwaat te takkaat suñu laxasaay te xam ne tubaab bi lii nga xamante ne Serigne Touba am na ko yéenewu ko woo de te mu yàqu da nga la bëgg tim nag jax-jaxe la lay def waaye nañ takku dëgër ñu ñëpp nañ tax ñu takku dëgër te xam ne Serigne Touba lislaam la doon xeexal te du raayu lislaam daal mukk ci àdduna ko fa seen yëkkati koo bëgg yëkkati na di ngay massacre la génn la àdduna moom xam nañ ko waaye àlaxee dañ ñëw rek parce que fii ci def fa ñu aw fa ñu aw fa ñu jëm mooy mooy mooy sax te koo ku nekk ku fa dugg da dëkk ci loolu def lu bon ci àdduna kon nañ xam loolu baax te góorgóorlu ci te bañ a diglu kenn bañ a diglu te sax ci ay njàngaleem ay njàngaleem bu ko saxee ba def leen lu baax bàyyi lu bon liggéey dañ jaamu ne yàlla yaa a yokk waaye Sëñ Tuubaa yokku ci Sëñ kenn yosaan pour kenn naan diw sànka jox kenn dara ci ngi ko jox a ko bëgg seen bopp ñu ko jox Sëñ Tuubaa xam ne Sëñ Tuubaa bu leen jigéen diwoon du ko def lii rek la Sëñ Tuubaa moom taw waame la bu te nit ñi itam bu jàpp ne nit ku weex daa gën ku ñuul bu jàpp ne itam nag yàlla lam lam yor na ko jeexal da ko da ko may yàlla jeexul du jeexal maa ngi ni ko yan fa maa lay baax te ab jàng lu mu rëy rëy nit ki amul xam-xam un njëriñ xam-xam li muy li muy jox nit mooy yàlla wax nañu ko yàgg nee na inna la si lam yaxsa rabbal alamin lay sa bien bi alim wala af na fu noonu don da nga jeexal bu ñu ne yàlla war nga def yaa jeex adduna sëpp jeex nànga lépp te ragaloo yàlla yaa ko xamul dara yar yam ndax xam-xam day bi ji nit ki jëm ko yàlla waaye bu ko bëggee jëm ko ci bëgg àdduna wala bëgg xam-xam kon kenn ko la nga nekk ci na ko sellal a ajj a dem sawar ba maa ngi nuyu kilifa yi fi teew ñëpp nga xam yàlla jox leen ay ndombe tànk kenn ko def waaye yàlla gis na xam na leen kenn ko na nga jàpp ci bis bi gis nañ ko ndax ba naa toog a dem mën a ah man lii ku yeex ku yeex doo ci def dara ndax lu bëgg ngeen ngeen indi ma ko lu ngeen bëgg def def ngeen ko kon jërë ngeen jëf yàlla na suñu tuwaa féete fépp kenn kon loo ci saa muy ëpp dërëm muy ñaar dërëm muy lu ma doon ñaar nañ ci bakki Seex Xaadim balaa balaa déwén sa borom yokk la ba nga yëg ne yokk ko da ko def kenn ko si yéen yàlla na ko Sëriñ ndax xam nañ yéen wu leen lu lu bon déen wu leen lu ñaaw kenn kon la nga bëgg indi ko ko la nga di denc ko kon maa ñaan suñu borom sàmm leen dikk ngeen dikk sàmmale ngeen dellu kenn bañ amul ndox fii ak fañ jëm li ma leen yéen daal yàlla naa ko naasu man foofu laa nekk li ma yéen sama bopp yéen naa ko li ma leen yéen yàlla naa ko naasu yàlla na Sëriñ Tuubaa wër ndong mu ñëpp dugal ñu ci wajbulaa xeyra mina jihaati assiti ak fiha min afat waxal wakun amaami wakun xalfi wakun wasati wa fi yamini simaal yaa rajaa ukuni nday joor kaw suuf fépp suñu borom yàlla nañu fi yàlla feet nga ko jaar ëpp na ëpp na xam ne mooy yoon mi ko central bi waxtaan ñu fii di jàjj di yokk nit ñu bari yàlla ko yàlla yokk leer suñu fàllu géey nga xam ne ci ñi son ci jëf yi ci la bokk mooy ak suñu Saliou Sall bokk taalibe yooyu nga xam ne ñooy jiitu ak euh, donga yi nga xam ne nekk ci daara ji am ñu ci wàññi ko bane moo di xaayir ak ñeneen ñeneen ñu ñëpp ñaan suñu boobu jéggal leen ku fi am mbàkk wàññi ko laa mbokk yàlla na yàlla jéggal te bis bii yàlla na ko suñu tuwaa def muy bis ñoon boo xam ne bisu yëkkati ku lay doon faaw yëkkati ci Sénégal def jàmm ci réew mi te tàppi xol yi te li ñu ragal moom nañ nañ ci nañ ci nañ ci tëdd nelaw duñ ko gis mukk ci àdduna ak fedda sax projet du ko yorati wala grenade lépp suñu tuwaa aar na ko te du tàkk daan fi am maa nga xam ne loolu waaw suñu tuwaa gox te nag ne moom jël muusa loo wax gis leneen yàlla yàlla moom lu tëri amut te suñu tuwaa lu wat yàlla yàlla war na ko la day dikk la la la la ñëwagut la ñaan yàlla la ñëwagut da ko ñaan xam ne xel dana ñëw bis waaye bu dikkee fekk mu protégé bu loolu bu dikkee bëgg a dugg Sénégal danaa foo mën la lam yan suñu la mu dugg ci réew fu ma jëm ci réew mi kon nañ rafet dala xel ñi ñuy jàpp naan imaam la ñuy jàpp naan imaam ay terroriste lañu ab murid doon ko moom ku sukk jébul doon terroriste ci àdduna xalaatuñ ko benn murid bi doon terroriste yéen ñi kenn ku jakk bomb wala ku ñu ko def sa bopp jox ko sa ngor kon doo doon loolu mukk ci àdduna kon ñun murid yi daal na suñu xel dal ñun julli ne suñu xel dal Sénégal daal jàmm fii am leneen du fi am ku bëgg indi la suñu Abdoulaye waxoon ku bëgg ne saw musiba te booba Irak ak Mauritanie ji la bi Sénégal Saddam Ousseynou ci boppam moo ko Serigne Saliou rahmatullahi alayhi Serigne Saliou mu ambassadeur moo ko ne Saddam ko tëral loxo ko neer mu wax ko ne sa kaw lañ ko delloo ba mu dee musiba moom képp koo xam ne yéene réew mi musiba moom dal ci kawam kooku moom day mel ku jaaxaan gaanwaay rek kon na fi yëpp yéen jàmm te rafet njortu te dala xel yi tey sutura la yàlla nga dimbale ko bu ngeen demee fu waay nekk tey suuf si fii na ngeen nekk benn te jàppalante te dimbalante te yërëmante lu waaye tane morom ñu ko dimbale morom ji te xam daa dinoon daa tërëri te yow ëllëg sa morom la day dalay dalay dalay keral tey ëllëg mu naajal ëllëg mu keral keneen noonu rek lay àdduna doxee kon fo ku boo léegi boo naajal ñooy dugg yekk seen kër nga dugg ci ñoom bu ko ñëpp defee liñ bëgg dañ ko am fii ak fañ jëm kàddu yi gudd na waaye yéene ji dañ koy waxee ak li ne li ñu yëg rek li ñuy yëg suñu yaram nit ki bu fekkee daa yëg dara ci yaram il faut mu bala moo am jàmm loolu da ko génne waaye bu ko bu ko génne du du du am jàmm te daje bi bëriwut ndax bis bi lañ ko def ak bisu Kazu Rajab bi ñaari fan ci at mi loola 365 jours la bu ngeen dajee ñu ànd ngi Sëñ Tuubaa war na maa waxtaan yéen li tax li tax ñu ànd yéen te bu ma leen nax bu ma leen bu ma leen wax lii nëbb lii ci bopp li ma nax li ma li ma gëm laay wax ci yéen kon fu waay dem na ko yóbbaale waaw loolu na ngeen nekk bokk ci murid yi te booy bokk yi sëñ Tuubaa réew mi boo ko dem fii sëñ Tuubaa jaamu yàlla képp nga dégg waaye fa sëñ Tuubaa ko dégg kon nag kooku ku ne mooy ko bëgg lam bañ nga bañ almar ba ko bëgg xam bëgg lii nga bëgg lii nga bañ lii wala mu bëgg lii nga bëgg loo xam ne bëgg koon loolu da ngay nax si boobu waaye àndul moom kon naxante baaxut jaayante baaxut nañu dëgg loolu yàlla bëgg mu ñu ko defee dañu am ni fi saayir ak baatin yàlla na yàlla defal jàmm dafa ñu xéewal ñu doon béy dañ gën asaka jox ko seen borom ñu jaay dañ gën asaka jox na ku waaye loolu liggéey da xool càmbar sa bopp ndax yàlla li mu laaj benn fukk lay laaj fukk lay lay jox laaj ci benn te benn boo ko jox bu deful fukk kon xale yi appareil yi bari na Facebook yi yeeg internet yi yéen bi waaye loolu lu ci concentré wu xool dañuy seen xel dañuy avancé rek ngi bëgg ci dugal dara loo loo loo loo nekkee internet bi di xool di xool ay ay ay nangam nangam ma teg ko jàng bi jaawartu wala nga nga jàng ko muxaddimaat wala muxaddimaat loolu boo jàng moo gën gaaw ëllëg ñu dencal ndax àllaaxira ka ña nekk li ñu bëgg ñëw moo ñëw tey ci àdduna pour def lu baax wa a dellu si ëllëg ñu mu jaay kon ñu ngi dundeeli gun te xamu ko ñuy faatu nañ profité temps bi xat na soxla yi bari na waaye dañ bàyyi dara def dara adduna du la ndërix mooy booy nekk ci optéri yi digg bëccëg mu naaju tàng nga siir lu mel ndox bu fàggee doo fekke dara waaw kon nañ bàyyi xel loolu tey góorgóor jàmm yàlla li ngeen naan concentré wu ci yii concentré wu ci xasiid yi ndax ku jàng xasaay sa xel da leer ku jàng xasaay da nga am lu bëgg ku bëgg xaalis képp day jàng xasiid mu ci a gaaw ku bëgg alal képp nga xam alal képp ku bëgg in raama in man aw raama xun man aw raama zul man in raama aw raama su man noonu la woo yor saa sa xay ki nga xam daa jóg nga bëgg a jalgati fii ki bëgg alal wala yàlla yàlla dong la nga ñëw fi yow da nga àdduna am àlaxira ki xam alal ci loo xam ne ne doo tudd tur ndax tudd tur dafa dafa la bokk ñu ko suuf ci Sénégal tuwaa ñu ko denc si fii kër ba njëkkee ab benn koo xam yaram yi daa neexutu fan yoo xam suñu micro ko dara tiimu ko ñoom ñaar ñoom lañ tëraloo juróom ñaari néew keroog Seydou Xaadim dikk ana ko ci ko ci diw sàngam te ki métti milliardaire la waaw daa am loo xam ne am dañu am xel euh, tànk fu mu mën dem xel fay dem daa am loo xam ne Alioune Sarr fii ñi xam nañ ko ko jiw waaye doo tudd tur kenn ndax koo tudd ma la te tëlu ma ko waaw li li ma sëñ bi laa war a nekk rek kon li may li may mujjee sama wax sëñ bi sëñ way sëñ bay jaxate daa ci mosal tuuti ndax ab jàjju la ab roqas la ci murit dafa wax ne murit bi bul nay ba doo joxe lëf waaye bul xiir ba doo desi lëf joxee lës lëf desis lëf nduuti màngoog yi maam wàcc yàlla alxaam ma jox wala te yadaka maxluuf maxluuf ilaa ma noxi waaye wala tab ku la basi nay ba doo joxe dara mooy lu lu ñu wax nga nga ne umu ko waaye xiirti ba yoo boo jox ko toog na fe na fe yàlla déedéet yàlla am ko ci moom wàcc gileemam mu ne koo dénk sa gileem ba tënk sa gileem tënk ma ko mu ne kooku ma ko yàlla yonent bi mu ne ko tënk sa gileem yàlla tënk kenn gileem yonent bi tënk kenn gileem kon nag bul xir ba doo bul nay ba doo joxe lëf waaye bul xir ba doo desi lëf joxee lees lëf desi lëf nduti bàngoon dee mosle ñu di muslu ndax kuy mosle ñu musal la ku lu mosle doo mos dara kon ñi ñaan sëñ Tuubaa lam lam ko lam la mujjee wax wax jana lam ci waxaan daa waxoon sëñ Tuubaa ne ko ràcce nga yéen dam ëppal nu ko ëpp ku xam nga ne xam mooy ëpp di di ab laax lañ ko def sif cee ngërëm wimbal nu ko wimbu koo xam mooy daqi weñ ba weñee dem nga jox ñu ko yàlla nga bi jaarum di béyal foofu laay àggale seen wax di wax ne yàlla ko ci am déen ñi manqué yàlla bu fi kenn manqué ñi manqué yàlla nañu la jégal ñun ñu dese ko yàlla ñu fi bàyyi bàyyi ñu téye ko déen te kenn mañ fi manqué koo tudd koo tudd ñëpp tudd naa leen ku ne wàcc naa sama xol def naa sama jëm bopp ku nekk la la nga xam def nga ko mais yëngu naa ko yàlla la ko yàlla delloo may yàlla yàlla ma yàlla dimbale ba man leen fay ndax kenn ni ngeen ni ngeen def ñun ñëpp ñoo ci war a ñoo ci war a góorgóorlu rawati nañ ko tudd suñu Fall ndax moo ko woote woon Touba kon bu ñëwee buñu kër am na fi kër yëpp ngeen bàyyi ko jéggi ba yëpp ñëw fii di buuxante di xatante di xatloo tudd ci koo ji xa mënuyu xat yi sëñ bi rek jaral leen ko kon maa ngi ñaan sëñ Touba bu ngeen ku dugg bàmmeel yàlla na yàlla na yàlla bàmmeel gën a yaatu asamaan suuf te loolu yomb na ci yàlla ndax yàlla foo kenn foo ko takk wees na foofu te ngeen góorgóorlu ci julli ci yonent bi sallallahu di jàng alxuraan yonent di julli ci wa sallam yomb na ku ne ma nga wax sallallahu ala muhammad yomb na waaye loo xoolee nangam eh, jël ko dee bàyyi xel waaw bëgg na yàlla bëgg na na yàlla bëgg na leen waaye nag bu màggan nag ngàbbu si kurus dem ci jàkk ji naan loolu gën a bañ ji tubaab kenn bañ xam xam nga loo weesu nga bi ku ku retraité mu soxlaatu la ah? sànni la moom day sànni xeer wala mu romb eh, ala papa wala euh, nangam jàll waxut kon nag yàlla gën a bëgg muy ndaw te te jii doo xoolal si ma gis ñi nekk ci ñu ma si image yëpp daanaka dafa mel ne bu doon téeméer la juróom yëpp ay julli ay ay ay ndaw lañ kenn amu ci ñaar fukki at wala kon loolu yoon yoo xam ne ndaw ci nag wala na développement am na kanam la jëm kon ñenn ñi fi dafa des ëllëg nañ góorgóorlu kenn ku nekk fa nga toll muy génération ma toll ñu ñii suñu génération bi ñu ba jàllale ko ñenn ñi dikk fexe ñoo jàllale loolee suñ ko defee dara du yàqu yàlla ñu am ngërëm Sëriñ Tuubaa ñëpp yàlla na yàlla làq fi yàgg yàggut sama borom defal jàmm defal leen xéewal wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, tàllal loxo yi wax leen amin amin amin amin bijaayi afdali man ربي بما يسرم الحسن خد فجاء بجاي أفضل من لله خال جاء حمدي لرب الكريم لا شريك له وسريا اليوم نور عن ساتي الملاء محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل بقلب الخلق ما يختار من برا نعيد جل ومن وكرمني تكريم هاد وكل من لغبريها رمانها بجميع الخلق رأى عني سري من قرآنه خلا خدمة المصطفى عن كل ما سدد وتهمني خلقا يا من جاله بدا يا مالك الملك يا من جاله القوادم ارحم الورى يا هادي الردى موت ما قناه القلب من درر بجاه أبدل من لله قد جاء صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن مال أبس والسفر